salaam waaleykum salaam sama doom sama sët ma sant man Aminata Dia Ndiaye laa tudd maamu Pape Matar Sarr jur bàyyi mooy sama taaw ma jur ko papaam nag daf ma yàgg a teral kon su doom juddoo teral ma rek ma xam ne ci tànku papaam la jaar Mame Matar Sarr nag xale boo xam ne kenn mënut wax wax xam kenn mënta wax yaroom am na respect ci kilifaam yi man duma man mi maamam du ma wax maam yaay la may wax maam Matar yaay la may wax am na yar am na teggin dërëmam du ko boolee kenn te jox na ñëpp respect tey bis bii bu am papa mi moo ko liggéey su ko liggéey loon du am ndax su jëloon doomam yu nekk ay wëyu dox di gees di def lii kon lii yëpp du fi am tey lépp nag ci papaam la xale papa Matar Maam Matar Sall juróom benn weer la nàmp benn yaayam tabara silla mi ko jur juróom benn weeru yi la ko nàmp weeru weenu yaayam ñu jël ko jox ko benn maamam sama wujju peccar go muy rama caam tey waroon naa fekki lii dafa dem àllaaxira mu di ko nàmpale meewu nag mu am benn nag buñ tukku demoon jimbóor yi su demee ba ñëw rek ratt mi di ko jox maam Matar mu di ko nàmp tey nag yaaram waroon naa fekkee tey lii ba doomam doomam aji saar bàjjanam bii aji saar yore xale bi téye ko ñuy dem ak moom di dem ak moom ba yàlla def xale bi di dem football cadet waali daan góor saa rakk papaam bokk ak papaam day ak baay ak ibnu fade bokk ak papaam benn pàppa ñu yore ko terrain waali daan bii Pape Matar Sarr góor saa la ku njëkk a dugal équipe nationale ñu dem Casamance ñu dem Casamance bi ñu ko papaam ba mu ni ba mu kii ba waa équipe bi mu mujjee dem mu jóge France dem fa jël ko yóbbu ko ñu toog ci équipe bi ba yàlla jëlewu fa mu dem France ñun Pape Matar Sarr daf ñu yàgg a dafa signé ñuy ñëw nit yeggale xaalis bi di ko séddale sama doom fekk ma ko ni ma yow yaay si daal séddale man ko déedéet ma jógee marché toog ci buntu waañ mu ñëw ni ma yaay Carlos nee na dañ la daaneel la sakar bâtiment bi man ko Carlos nee nañ ma daaneel sama bâtiment mu ni waaw man ko ah moom lii rëy na de mun ma nee na nañ la daaneel sa bâtiment bi man ma def ma def def na fay foo papaam def dëgg muy bâtiment bii ma dëkk tey bii ma dëkk la daaneel yëkkatil ma ko état ci kaw gasal ma teen ñun nag suñu borom bi nga xam ne day maye cay maye dañuy ñaan ni Pape Matar Sarr li mu bëgg moo ko xam yal na ko suñu borom bi defal ca ndam li ñu yaakaar tey Sénégal gi yal na ko senegal indi tey loolu rek lañuy ñaan yàlla. déedéet tawul de mosut a të du la seen bët sax du ñeent Pape Matar seen bët du ñeent ñi fi nekk ñëpp ay papaam lañu ak i rakki papaam waaye du seen bët mukk duñu mos a moom Pape muy doom yi Tabara Sylla Joob ak Sidaat ñoom ñëpp am respect Mara Wade papa góob ma ngi tey ma nga France ka magam bu taaw bi mi ngi Italie waaye mësuñoo nekk ay wëyu ci du ñuy wëyu ñun kër gi ci boppam wëyu di fee amul ndax juruñu ay wëyu waaw tey nag mu bokk ci équipe nationale bi gën a rëy ci senegal ñu di ko ñaanal yàlla nag suñu borom bi yàlla na ko yàlla may ndam man da seex na seex saat bu laa ko gëñu bis bu ñu gañee suba aéroport kenn du ma fa jiitu mosumaa dem aéroport waaye suba dinaa dem aéroport ndax jëli Mame Matar Sarr dem taxaw dem taxaw nag sañse ba jekk taxaw xaar maa mataar mu wàcc ci avion bi ma kott ko ñu indi ko Sénégal dinaa ko def suba lépp la ñuy àndal ñi mu fi nekkal ñëpp ay rakkam ay a fi nekk ay papam lépp lañ fi nekk ñoom la ñuy àndal suba dem jëli maa Matar Sarr indi ko indi ko Bithiès ñu wàcc kër papam ñu ñëw ci kër gi mu cosaanoo papam fii la juddoo man maay yaayam Badara saar mooy baayam dem àllaaxira ñu bokk ci famille bu rëy nag di ñoomin ko diggante Fatick ak Foundiougne ak ñaam jorox fi lañ bokk cosaan Thank you.